kii nag benn boy bu réew la woon bu dëkkoon ci koñ bi quoi benn jour xaritu papam dafa ñëwoon quoi ci kër gi ñuy dugg gardien bi avertiroon na ko ne ko gis nga booy bale toog dafa réew ba dof nanga ko moytu de waa bi dugg toog rek boy bi jege si bi ne kii foog ma napp ko balaa mu yéeg sama kaw mu ne ko e eh boyee yow dégg naa ne nga réew ba dof waaye gis nga man soo ma moytuwul naa la fi def lu xasaw laa la wax boy bi xool ko rek ne ko xanaa dag may puub